gannaaw ko giiru Quraysh yokku nañ ca ca kaw juróom ñenantu xasab li doon yi yàllaw gannaaw ko lañ wax ne Abdullaahi moo ko tabax ibnu Subayru bi isnillaahi yàllaw resal na buntam ya fetaat buntu yokku ca kaw juróom ñenantu xasab bam gudd yàllaw seen boole ni te juróom ñaar lañ tabax ba bi tey caay xasab mooy guddaay néeg bayalaw xalifa buñ naa xajaaj moo màbb lam tabaxoon toj ay kenoom reylu abdulaayi yàllaw gannaaw bu gàddaay ga laqee junni te colu mat fanweeri at ay juróom ñaar wóor na yàllaw la dellu màbbati ngir am yul ci weeru rajab mbaa ci barax halal mar wi yi yàllaw waa makka ñaa ko tabax boobee ba tey tëjatul xam sax waram téere yee wax lii waa makka ñaa ko tabax boobee ba tey tëjatul xam sax waram téere yee wax lii waa karim madal yal karamal dëhran daal bil sasim min ga yàlla wasaliina bi taslimin alayhi warawiira bi rayhaani yanaaw su ngeen xamul at ya am ci àdduna ji buur yàlla yónnee ko bil aayaati yanaaw su ngeen xamul at ya am ci àdduna ji buur yàlla yónnee ko bil aayaati yanaaw su ngeen ma dégloo ma wax leen at yaag la ca xew ak bis ba jibril ñëwee bil wahyi yanaaw yeneen ñen fukki at lay am ko far lil insi wal jinni wal amlaaki yàllaw njool makka bam laa giseek jibiilu daan na géwén lu juróom benn weer banaqi yàllaw mbiram gën tamma raw de bees raw telefon day dugg xalaaka woor fiil xaare yàllaw keroog ba njool makka duggee xaaru كنت nekk حمدا وشكرا على المختار يا الله منك في جامو ربنا شيء فنفا بالشكر والفكر والتسبيح يا الله بدين مام سن إبراهيم لن كجوخن ba yàlla yónni fa bis jibriilu yàllaw ci weeru koor la ko jibriil feeñ waxyu ko bis ci fukki fan ak juróom ñaar wóor na yàllaw ci weeru koor la deej wayu ko bis ci fukki fan ak juróom-ñaar wóor na yàllaw ci laylatul qadri fii nay ni ci waxewel la Mustafa jëkke gis jibriilu yàllaw ay wuute am na ca ngir mawlid ba wax na ba wax nit ak juróom-ñetti fan ciw gàmmo yàllaw way xiili xaala ya ñang naa way xiili xaala ya way xiili xaala ya ña naaweeru gàmmo la ñaa naaweeru koor la ko jibril feeñu yàllaaw way xiili xaale ñag naa weeru gàmmo la ñaa naaweeru koor la ko jibril feeñu yàllaaw ñaanaa kasum ci rajab ñaanaa ci gàmmo yebum yàllaa ko xam moog rasuulullaahi yàllaaw ñaanaa kasum ci rajab ñaanaa ci gàmmu yebbu yàlla ko xam moog rasul lu looye yàlla woo ñaanaa jeesum ci rajab ñaanaa ci gàmmu yebbu yàlla ko xam moog rasul lullahi yahlaawoo ñaan naa juróom ñaari fan lay doon di altine bis ngir altine di bisu yonem ba yallaaw jibrilu ñëw mu rasuulullaahi naa ko waxal jàngal ba mu yetti yoon muy lox fa yallaaw mu naa ko man musuma dal jàng booba ba tey am naa nabiyun ummiyun wóor na yallaaw jibrilu tabli ca biir gémme nga daldi ko sax mu daldi wax xalamal insaana yalaw jibrilu naa mustafa iqra bismi rabbika hum ya ayyuha mudashiru taayiru law wa ansiri naasa bil qur'aani wadnu ilaa sabili rabbika bil aayaati yalaw وانشر الناس بالقرآن وادعو إلى سبيل ربك بالآيات يا الله jibiilu tëb daldi këddaa dañoo fett di wal jibiilu jàngal ko foofee njàpp yàllaw jibriilu jiite ko foofee ñaaru rakka nemes illa samawaati fil amlaaki yàllaw njool makka jekki fa taylo yetti waxi ruyu mag ba xel ma del mu ñëw saabal ko yàllaaw ñëw ma ko ca juba koy wax yetti waxtu yu mat ba xel ma del see mu ñëw saabal ko yàllaaw njool makka jetti fa tey lox yetti waxtu yu mat ba xel ma del mu ñëw saabal ko yàllaaw waraqatun wa xadiijatun wa xayruma ñoo jëkk wax naa ko mooy jibriilu yàllaaw ñi teg caay fane fan jibriilu nee ci jalañ naa yaa mu sanni ruxum yallaaw yallaaw ñu daldi xam ne rasuulullaay ñëw na bu wér njëbbal ma dal yu gay tukkee fa yallaaw waa tarit na dari al mustafaa karaman dërar gaar din sasim min fa yallaaw wasaleenu bi tasliimin alay bi warawi ruuxa bi rayaani yallaaw déglul coro Moustapha wootee ca Makka yow ku jëkk ga Moustapha góor ba yàlla huwa siddiqu rafiqul xaara wahdahuma mooy baay ha isatin moo gëm fa yàlla abo siraafi mina sidaani moo jëkk ca ndaw ñawoon ca Quraysin siiw na yàlla wa muhammi rasuulillaahi boo ko xamul soo jur ba tooli xalliil karamallaaw jigéen ñëwoon ca xuraysin mboole seen nañu daj xadija doo jëkk gëm yonnam bayallaaw bur yàlla xar na xolam tabal ci ahmada naa xel ma du xel-xeli lu njool ma kayallaaw zeydu mu haarisatil mawlaa du moo jëkk gëm tey kuñ boyal bi rasuulillaahi yàllaw bilaalu moo jëkk a gëm tey kuñ yilif abadan bànnoo soo woo nañ ko ba wax naag bikkin ba ñëw ko jot mu boole ko njot ga jox yonnan ba yàllaw njol makka far ko goreel muy noddu waxtu jot bur far ko goreel fi naar yi xeroog ba njool màkk wu jéey yàlla noddu ga jot noddu ca jàkkay tey bayalaw asadu anna muhammadan jaral na ko jib jàkkay madinatu jooy farxaacu yalaw ashadu anna muhammadan jaral na ko jib jàkkay madinatu jooy farxaacu yalaw xeroog la daldi bàyyi noddam banam fa bawoo noddul ca jàkka ngir njool màkk yalaw وجار المادري المصطفى كرما دهرا بيعرف سسي ينا منك يا الله وزاديتنا بتسليم الهالين هلاوي روح بير رياني يا الله ما dellu wax leen ba ngeen xam gaaya jébul woon ña jëkk gàddaay ga fii lislaam yelaw ma dellu wax leen ba ngeen xam gaaya jébul woon ña jëkk gàddaay ga fii lislaam yelaw Usmaan a jébulu soon noore in moo jëkk gëm bannoo ummiyata seen askan wayalaw saadun sayidun wa jaladun subayruhumo kasaw naaw fin ñi léegam boo bayalaw isaaba ñooy hasratun ya ñaamu basaratun bi jannatil xulli fil janaati yalaw ñii fukku lañ warlu loon aljana warlu wér yal na nu jéggal te séet ga yalaw ñii fukk dañ daa beroog yonnan ba ngir garagal dina buy éefar ya seen ak jaamu yàlla ca moomaat lañ dugal le moomaat lañ na buy julli kenn du biral sàkkaati noddu walay li xaame yàlla ca moomaat lañ na buy julli kenn du biral sàkkaati noddu walay li xaame yàlla fii daari lañ xam ne yonen nekk ay fani fan moo gaaye jébbalu woon ñi jaamu yàlla keroog la yàlla yebal jibril mu fekki omar mu tëdd bis mook aboo jëhlin fa yàlla mu daldi koy nes dungub liimaan daldi ne mes mu yeewu romb aboo jëhlin fa yàlla fekkoon na yonen di ñaa naa yàlla yaari omar yooyee ca makka mu jël faarooxu yàlla bésu keroog la omar na suruuga ñëw ne nërëm toj tax ya noddu liqaam ñuy julli yàllaaw fekk na sayiduna am sa tu jébbaloon ca bakki démb sa mooy baay tax ba yàllaaw njool maaka bégg naa keroog waa maaka meer nañu ngir lislaam taxaw naa keroog بديني يا الله lool maa kabe naa waa maa kamer nañu ngir lislaam taxaw naa keroog bi diini yàlla woo fekk nañu ne bu seenu jaam ayati at cam yat yaat la ca mawlid wa wayalaw ba bis ba loola bi ral wàccee ca madanaa fas da bi maa tooma rombal gaaya yalaw ba bis ba laaye bi ral wàccee ca madanaa fas da bi maa tooma rombal gaaya yalaw bésab keroog lañ ko naa faaruqu sayduna lay sunu daay sadul lislaam yalaw wa yow maslama faarooxul hudaa omarul keroog la lislaam taxaw bi diine yàllaw faarooxa ñëw daldi woo mbooloo ma ñépp taxaw li diini wal haqi wal islaami yàllaw mu doj xerem ya saxal tawit ja ñépp wedam kenn dootu léew toog rasuulullaahi yàllaw lislaam taxaw temm kiifar daanu faf na jirim njëbal ma saaba yay xas woo fayalaw lislaam taxaw temm kiifar daanu fab na jirim njëbal ma saaba yay xas woo fayalaw jibrilu ñëw na keroog njëbal ma ngir waa makka booti homar fil jahri yalaw mualliman al islaam al fataa homarun busraani ahli samaa wal ardi ca jëkk loole aboo jahlin yu met na ko bis ñëw betti saaba yo moo yéefar yàllaaw ñu dal di dër dal di xeex ak ñoom ñu daw ba nemes sax dublu abbi waqaas dóor leen fa yàllaaw ñu dal di dër dal di xeex ak ñoom ñu daw ba nemes sax dublu abbi waqaas dóor leen fa yàllaaw kew la gis doomi kew la jëkk gis dam bi yéefar jëkka dóoru bu wér ci seen tuuru bu wér ci seen waa lislaam ya yàllaaw tollu gis dam bi tuuru bu wér ci seen waa lislaam ya yàllaaw dóor nañ bilaalul te dóor xabaaba dàq fa nit dóor nañ doomi yaasir foofu yàllaaw yaa ci duur ya ma faatoo Mustafa ko julee ñu rob ko tabbal ko fil janaati yalaaw bésub keroog laa boo jali ndi ba jam jigéen ba sim yata ngir bañ yàlla yalaaw nga job bu ñëw gala xàccee xàcc jam ko ci bay ngir bañ mu ànd ak rasuulullaahi yalaaw moo jëkk faatu ci lislaam hey jigéen ju seyut yónneen ba tàbbal ko fil janaat ya yàllaw ca moomaat la balaa ak mbas mu kenn gisagul ñoo makka jeexal ko faaga gal gu yàllaw ba mbas ma teesee ñu xëy gàddaay ilaa habasin yéewam na jaasi buurab ja ya yàllaw mu daldi làqu aboo taalib mu haar ko bu ba yàlla delloo ko mook saabaam ya yàllaw te moomat lañ digal yónneen baa ña ko dar xiyaamu badin min assahaati yalaw te moomat lañ dugal ay naafilaaki xalam a ñaaru rakkay suba ngoon wóor na yalaw li la jay laaye fil quraani day na saxal ay atiñ dugalam min xabli yalaw wa maata baayam aboo taalib te moomale at ci fukki fan ak juróom ciw kor yàllaw xadijatu naga boo taalib mamaatuhuma fukki ñat mañ ko yónnee wóor na yàllaw mawlid boobu ne ñaar sabaana moom lañu wax ne weeru góor la ca mawlid ba wuute ñaar sabaana moom lañu wax ne weeru góor la ca mawlid ba wuute sabaana moom lañu wax ne weeru góor la ca malus ni yàllaw kem ñetti fan lañ rawante ndaw musiba mu rëy balaa batar na xalal asaabi yàllaw ca moomat la rasulullaahi génn weret seydoo ko sant mu dem taayu fa yàllaw loolaa di ñaareeli gàddaayam la tiire ya wax leeral na taayu fa awaa saxiifa yàllaw loolaa di ñaareeli gàddaayam la diiree wax leeral na daayifa ak saaqiifa yàllaw yéefare daf nañ ko moog seydu braari setin dóor nañ ko ay doj ba xaaj yonen ba yàllaw jiiru quraysin di xas yonen ku nekk di wax ñu boole koo gàllo yaa saay saay sa yàllaw ñu xëy kóor di ko sànney doj ña lay cori ye ba yaari dàllam ya réexoo damm yàllaw bam jàq bay bëgga ñaan buur yàlla ak far ngir lor yaa xas yow jam-jam yaaya naaw malaaka yàlla wa keeka yi na jasal ne Mustafa noo noolay wàllu yàllaaw malaaka yi yàlla wa keel faf na jasal ne Mustafa noo noolay wàllu yàllaaw su ñaar doj yañu naa fii lax bay ni la nuy fagga pileen ko ñuraat falhan goyalaw sun yaar ga jeñunaa fiilax sa bayini lañuy fagga pileen ko ñuraat falhan goyalaw ñol makkoon fa malaa kay daje rahmatahoo nan leen yërëm ndax ñu jur ñuy topp yalaw ñol makkoon fa malaa kay daje rahmatahoo nan leen yërëm ndax ñu jur ñuy topp yalaw mbole malaaka ya dem yéefar ya dem na te saf njool makka ak seydu wey taayif a yallaaw taayif la jibiilu wàccee saaru jinne mu ñëw jinneem ya jébbulu ànd ak nit ña yallaaw xisab jinneem ya xajul fii tiiri yéema ko wax mawrin wawul ko da ko neenal fa yallaaw yoon nan wasax na fa taayif am faren ba déwén réew mépp jébbulu saawaay del si yallaaw واتار نادري المصطفى كرما دارا بيا في السسي ينامك يا لاو وسليتنا بتس لمن عليه به راهبي رياني يا لاو دقال الماء وغلا رنيا نام مصطفى من يدم يا سماوات موك جبريل يا لاو ñu dem illa samaawaati mook jibriilu yàllaaw nit ak juróom ñaar ci guddi gaaw lañ ko na jas ci aw rajab jëme kaw muy wuy ji yàllaaw juróomi weer mbaa juróom bennam la téere ya wax la wuy ji yàlla xatam gàddaay ga yàllaaw juróomi weer mbaa juróom bennam la téere ya wax la wuy ji yàlla xatam gàddaay ga yàllaaw sóora lamiini haa lamiini jiiwa xëri fawxa lamiini mbindam seex bamba yallaaw sóora lamiini maa lamiini jiiwa xëri fawxa lamiini mbindam seex bamba yallaaw sóora lamiini maa lamiini jiiwa xëri fawxa lamiini mbindam seex bamba yallaaw sóora lamiini maa lamiini ji wa xëri fawxa lamiini mbindam Cheikh Bamba yàllaaw ni ka juróom ñetti fan jibriilu ñëw di ko woo naa yaa amiinu wa yaa maamoonu yàllaaw ni ka makkata jaar baytil muxaddasi war fawxal buraaxi nuyoo yonen yaa yàllaaw bur yàlla digal na yónneen yëpp yëpp keroog ba julli ànd ak rasulullahi yàllaw jibril toogoog rasulullahi fas wa ñu wey ba sidratul muntaha mu yam fa yàllaw mu xar juróom yaari kiiraay yëpp wuntu ya mu soppi kow xàll ngir xar baax ya yàllaw mu romb siyaasamaaw maam sunu aadama jóg sukkal koraamal ko mook mbooloo ma yàllaw keroog nag gis ruuyu ñaari joor seq la gis ruuyu weex ak ruuyu ñuul ne kurum ñaari joor seq sunu maam aadaya laaw jibril na way texe yaa ngay ree di abadan safaan ya jooy nañ kaay ra mu yàllaw foofee gis góor gu màggat yor jigéen ju kumur koy sukkal naa ko kaay muy daw ba yàllaw jibrilu pis ko boo wijjee sa xeet du raw dawal bu baax àddina ak iblis mu romb ñaareel ba gis Isaa ibnu Maryam ak Yahya allazi utiyal ukaama yàllaaw keroog la gis aw jigéen ñii mooy ci àdduna ji ñi rekk seen ween ya ñuy xandaalu yàllaaw mu dellu gis foofa góor ñuy mooy ci àdduna ji ñi rekk seen geen ya ñuy xandaalu yàllaaw moroom ñetteel ba ànd taar ba Yuusufa jóg raamal koleer gandoog linhaar si yàllaw karaw la jël kuréel bu yomb yàpp wu ñor dem reere metti mu kenn toggul fa yàllaw karaw la gis ab kuréel bu romb yàpp wu ñor dem reere metti mu kenn toggul fa yàllaw mu laaj jibril mu naa mooy gaaye denc jabar te dox di wut lu xaraab gannaaw ga yàllaw idris dëkkee juru sàmbadan ca sus ñenal ceel sa lañ féeroo fa yàlla idris yonen ba daa dëkkee juru sàmbadan ca sus ñenal ceel sa lañ féeroo fa yàlla keroog la gisoon kuréel buy wan ni xala ba muy lakk seeni butit ñu yuux fa yàlla mu laaj ko jibril mu naa mooy gaaya lekk riba tey fab alal ci jirim tey tooñ ba yàllaaw haaruna yaamal na yonnen man ko romb di wéy ci biir juróomeeli kiiraay foo ba yàllaaw keroog la gis ab kuréel bu yàpp seenu yaram nii si sa seen tuñ ak seen gët ya mu laaj ko jibril mu naa ah, mooy garbo ya jamu tuñ tey rek a joo ko wëree luy faalu moo saala الذي كلم المولى taxaw nañu til daarob ga ma nga ca juróom mbeneel ba yàlla woo moo sale si kàllamal mawla taxaw nañu ngir daarob

ñol ak lem ak soow ndoxam ñul maa ngi yellew moroom ma maam sun ibrahima hëm jëkkëroy maam cerno toog juróom ñaareel ba yellew torool la gis ay malaaka buur yi sàppe taxaw te mosuñoo sëgg ngir njool ma ka yellew mu gis malaaka yi sëgg jëm abadan te mosuñoo siggi ngir war maal ko yellew jibril na gaaya fi jootam sigileeg te nuyoo ña taxawal sëgg ngir war maal goyalaw keroog na jool ma kaxe dang julli far ko dugal jaamu malaaka yàlla yàllaw keroog la njool makka xemem julli far ko dugal jaamu malaaka yàlla yàllaw jibril gunge rasulullahi bàjjo ba wéy li sidratil muntaha gis yàlla yàlla muy xotti diile leer ya jolli tàbbi aras ak kursi yoog malako tilaa ya yàlla foofee la gis xayim ak buur yàlla muy bind di kerker yi bind yi bir ya yàlla buur yàlla de bis leer ga taxaw ba pey bara ngir ga màggal nguur ga yàlla yonen ba daal di nuyoo buur yàlla fay ko bu wéy mboolem malaaka ya sabaal foofa yàlla jegee na buur kenn xalaat ka jëm te lii la ñu wax ca alxuraan te nga wa naj mi yàlla jegee na buur déglul ndem xamoo ko bu wér bur yàlla moo sopp yónneen woo ko yàlla xeroo la fab lislaam yépp jox ko mu yor ngir fonk yónneen ba ak xeetam wa yàlla juróomi julli seen ab reen na ba mat juróom fukk ak naafilay saati yàlla ba Mustafa dellu see Muusa teral ko bu wér sargal ko laaj ko boroomam foofa yàlla yónnee na xibaar fa la xew ak dogal ci ñoñam Muusa digal ko ne dellul wàññi yàlla sa xeetu kat xattanuñ boobeeb dogal abadan te yàlla gat loo ko laaj xam loola yàlla muy dem di delsi ci Muusa ndox diggante ba far ay yooni yoon ba ñu wàññi julli juróomi julli foo leen am nga lu mat yool ak juróom fukki julli booba yàllaw bur yàlla kay yàlla na fay moosa moo jëkk ma fay moosa mi fay mbooloo me yàllaw bur yàlla kay yàlla na fay Musa moo jëkk ma fay Musa moo mujj mi fay mbooloo mi Yàlla woo fay Mustafa moo ma fay mi Mustafa lu rafet gannaaw ba Yàlla fay Seex Bamba yàlla fay Mustafa maama fay mi Mustafa lu rafet gannaaw ba yàlla fayee Seex Bamba yàlla waa tari na dareel Mustafa karaman dëran biarfin sa siimin ka yàlla wasaleel na bi taslimin alay bi warawi roha bi rayhaan yàlla déglul maax la ba yónneen dellu see jóge kaw min as-samaawaati lil adina yalaw ba bët setee sadaqa sidiq moo jëkk a gëm rañaan ma lu wax mu dëggal loola yalaw wakka sabaru xuraysin ak bon kaboo jëlimta wax mu weddi loola yalaw ñu réer ñaan ak aboo jahlin di weddi ba tey ñu baax ñaan ak abi bikrin ba yalaw lislaam teral na abi bikin teral na homar tuubaa fa tuubaa la naa yallaahu yallaahu teral naa boo jahlin te kenn du ko fab waylun fa waylun lahu yallaahu yallaahu keroog la biin ibnu lahsham ab jabar la buy da koo jabar def ko ci fas biir la tàmbal fas ga doon ko jaaw daj boole koo kawar ak yoonam ba yallaahu yónneen ba mel ni ku dof te fukki weer layu mat ak wenn weer lii la mawlid wa fayalaw way xili xaala ya ñag naa kem ñeneen fukki fan ñaa naa juróom benn weer mooy ndof gayalaw jibrilu ñoo wàccaand fukki laaya yu mat ak benn mooy fallaxin wa naasi yalaw yéefar ya naa Mustafa kay dof na kenn ko bay xëlli yaay dara moo gis mbir ma yalaw yëfa ya doon wax ne yoon dof na daal te torox ñi jàng wa naj mi fi islaami ma dala saayi bu ku moo leen tëral ñu wa ma habibi bi majnuunin fa yalaw wàllu la Moustapha mooy dof te kenn du ko faj day say ba naar ya ca moom ak la rasulullaahi dal di taxaw di woote woote bu wér li diine yalaw ca moomaat la rasulullahi daldi taxaw di woote woote bu wér li diine yanaaw ànd ak saaba ya ñi wër réew ma mépp di wax di dem ca xew ya di waat mbooloo ya yanaaw ca la ko lan saa topp bu wér lu mat juróom benn faris gëm na yanaaw lu mat fukk ak ñaar taxaw jaayante jébbulu far diggante xasraja ak waa law si yanaaw sadun habazatun moo jëkk a far ak ñaaru mag ñu jigéen fii law si yalaw abo amaamata asat te caraatu ak rafaahatu xawfin ak xafraau yalaw cara la yónneen ba yónnee ak ka ngir nañu gëm nan dikk mbaa nuy forcé yalaw sadun sayidun maa bi laa ima sabu ñoo jëkk a woote jeeg njëbal fa yalaw keroog la saaba ya booloo jëkk julli bu wér julli jumaa ma sabay seen yiit fa yàllaaw seytaane mer na keroog ba jooy na di xul di yedd mbooloom ngir seen gëm ga yàllaaw waa darit na dar yàlla Mustafa karaman dara daar bil sasin min ga yàllaaw wasalee bi taslimin alay bi وغوي روح بريان يلو دقلال ما وغلا أتم قادا جاك لجخو آجر كي جلتي جاك خرباخ يا يا لاو دقلال xalaatam gàddaay ja ak la ca xew ak jël di jël di ja xarbaax ya yàlla woo giru Quraysh si dañoo booloo na rey ko mu wér mbaate ñu génn ko muy dem faw wa yàlla nisul corog la aboo jalin di ñaaxi banaa kuréy muhammadu am lëf tey fa yàllaw nisul corog naka ñëw seytaane soppi ku nit leen fexeel xay yi réewam naj de yàllaw la yàlla yebal jibril jox ko ndigal wasal fa ay laaya jox yonem ba yàllaw laay wa cam kuroo ñëw wa ko lépp lu bur yàlla faf na ko gàddaayal fa yàllaw bésub keroog la rasulullah yi dal di laxas ilal madinati gertal ma gayalaw mu wolu haliyu jamaaram janaa ko tëddal ci néeg bi maa ngi rañaan dem tay bayalaw haliyu ay dara jàmbaaram bi tëdd bu jag calal ba tey way rasulullah yalaw maam ya gaw kër ga tey xas Mustapha ne melas fab suuf sëlëx leen ñu raw way dee yalaw mu daldi wey mook ab bii bi gil ña des di xaram ba bët fetee noon yanna yallaahu yallaahu lii du njabar du lu kenn xam ay xiram du ni mel xar xitam du ni mel lii raw na yallaahu seytaane daw agoo daw na jahlin torox na darus seen koote yàqu na sun mbër wéy na yallaahu wa makaro wa makarallaahu alkayimu naam seen firaax na ca seen kaw wóor na yàlla wa makaro wa makarallaahu alkayimu naam seen firaax na ca seen kaw wóor na yàlla yónneen ba ànd ak Abubakar ñu yokku ca jël dem xaar yendoo nelaw tey sant yàlla yéefare jóg di xañub tànkam te ku ko gis am lii ci laa am laa mbaa nga yàllaw sax nañ fa xam ne kenn yëgu leen lut yàlla ak ñettu nit fa kem ñetti fan ñoo xam ne kenn yëgu leen lut yàlla ak ñetti nit foofee wa yàllaw asmaa u doomi dadaa defu ñam di topp guddi di yëg baayam wa yàllaw waamilu te cobbi laay daan nañu dem kii day xibaar kii di yor naanam ga yàlla xar baax yo teen ca keroo kunte mapp na xel ci mujisaati rasulullahi yàlla garab gu sax dal di def meññet te law ne tërës petax ma tàgg ca dal cay nan fa yàlla jàngoon jëndi nu ko bam dal bu safaari bir xar baax man nay xerem lii woon na سنو ماما وسنو انكبوت يلا خير البيت لا جلبر يلا واتارت نادري المصطفى كرم دارا بألف سسي ينا منك يا الله المصطفى كرم درامي في سشي ينامك يا الله وصالي بتسليم Mustafa Muxtaar ya naaw kere ba yónneen rañaane xaal bay bëgg a dem ilal madinati ca jental Makka ya naaw kere ba yónneen rañaane xaal bay bëgg a dem ilal madinati jental Makka ya naaw keroog la kuntee ma jooy ba ñépp dégg mu ya ah, yaa Mustafa yaa rasulullahi yàllaw mu war gëlem gu faraw boo xam ne def na séréw sol séri weex ne féréw yàllaw yàllaw ne nañ gëlem gu ñu naa ah, jadaa umam la waroon ñaanaa maat baaw mbaa xuswaafa yàllaw yéete naaga la yoneen xam te bañ ko gisul gelle ga du naanatul bañ xaatu yàllaaw abubakar wër gëleemam yóbbalam la ca sëf tey camp tey ràmbal fa yàllaaw keroog suraaqata moo leen jot di leen wax yow su dal di koy moddu moog ja yàllaaw mag naa lamaanu lamaanu mustafa yërëmal billaahi dootuma gaaral faw wa yàllaaw suuf dal di koy muy jaabal Firaabla be far cërëm ya far dongu mooy lo faw yàllaaw mesu keroog kum dajel doo dab Rasuulu ba tey te doo ko sóorooti mbokk santam ba yàllaaw mesu keroog kum dajel doo dab Rasuulu ba tey te doo ko sóorooti mbokk santam ba yàllaaw ba Mustafa wàcce xayma ummi Muhammadi im nuyoo ba bekk mu dem ngir soxla yàllaaw ba Moustapha wàcc xayma ummi mahbadihim nuyoo fa fekk mu dem ngir soxla yàlla mu daal fay laaj soow ak luñ defar ci ndawal ngir bëgg a jënd ñu naa am til fa yàlla mu far ne leen yeewi leen ab gàtt ma bu wow bu muslaam soow ma jooxal soow ma yàlla ñët ko gàtt bu yooy boo xam ne duñ ko wëtal mu raayanaat ba mu jooxal soow ma yàlla ñi rati sooma ba mbooloo mépp naan ba desal dab yépp fengat li lay kéemaane yàllaw bari de turan siibin dal di far na suuga ànd juróom ñaar fukk yàllaw yennan bala dal di ànd ak gaa yi ñu dal di yendal muy jàkka yàllaw bés bugga ñaar bu diglis nay ne lañ fa taxaw ci weeru gàmmu la mawlid wax fa yàllaw saanañfakem fukki fan ñaanaa mutul fukki fan ay wuute am na ci bistaar weer wa yàlla foofee la ci xijulee tey xutba ñëpp taxaw jule jumaa ni la mawlid wa yàlla asma doomi abi bikrin ja nekk fa kër subayru jur na keroog gàddaay ga yàlla moo jëkk juddu xubaa gàddaay ga moo di lëlam ñu daldi koy tudde abdullahi yàlla keroog la war sunda ma waa ba ñépp taxaw mbooloo ma sënku ko leer yey jolli yellew keroog la war sunda ma waa ba ñépp taxaw mbooloo ma sënku ko leer day jolli yellew muhaajiriina ak lansaar ñépp di way maa maradan yaa rasuulullaahi yellew keroog jigéenu bànni na jaar dañoo dajaloo wut ay lëndëg tabalaat ay xiin ba yàlla diggi ndi teru rasulullahi ñépp di way yaa habasa habasa min jaari na law nekk naa sama kër la jaari maa gën a yey ci gan gu toll ni rasulullahi yàlla yónnee na bu fi kenn soowoo na ñépp wedam gëléem gi jibrila wa man nas bi yàlla yónnee na leen bu fi kenn soowoo na ñëpp wedam gëléem gi jibi la womat nos bi yàlla mu mbes na ngeen xam na foofee mooy barab bi ma jëm mu yes soomaat bat ba fii tàndal ma yàlla njool màkk wàcc na leen fii mooy barab bi ma jëm ñu jaay ko pàkkam ba mooy jàkkam ja yàlla njool màkk wàcc fii mooy barab bi ma ñu jaay ko pàkkam mooy jàkkam ja te fukki dinaar yu ma ak la daal dina cas ci yóbbal Baabakar jox réew ma yàlla mu jënd teen ba fa nekkoon biiru rahmata mooy teen ab yawat ba ko doon um, njublam ba yàlla moom it teroog fukki junne la daal dina cas ci yóbbal ab Usmaan yàlla mu daal di dal këram ya yooba daal di tabax jàkkay Madinatu ñëpp sant yàlla tabax ga fukki weer ak ñaar la leen ñu wax su gàmmu lañ fondu man jakaam jayalaw tabax ga fukki weer ak yaar la lii la ñu wax su gàmmu lañ fondu man jakaam jayalaw bu dee ba cëg la ma yay boole den ba déwén mu cëg di jiw gàmmu lañ agal fa yalaw keroog la njool maa këgër kaagu waa maa di نبتي ما كاشية رجم ما دينا يا الله بركة بركة واترن هذا يا المصطفى كرما دارن دار في السجي ينمن تيلو واترنا دري المصطفى كرما درن دار في السجي من كيلو وسلم بتسليم عليه warawiiro bi rey aani yàlla déglul ma la na binda Mustafa mela mel bam tudd gën ji mbindeef gën ñëpp yàlla déglul ma la na binda Mustafa mela mel bam tudd gën ji mbindeef gën ñëpp yàlla xat kaanaag malahum xalxan wa ajmalahum xulxan wa asdaxahum xawlan fa yàlla jikkoom ya ñoo meloom yaa sel wi cër ya rafet ciy mustafaal mujtabaal muxtaar ya yàllaw bu yàlla dee sakkuloon misloom ca gaaya weyum te dootu sakkati misloom wóor na yàllaw gàttul guddul xeesuloon ñuulul yaram war a tax cëram ya mat sëkk buy dox su la yàllaw moom daamawul defuloon nam njool reyul na ba dawul wawul seddagul segul bayalaaw rékkul asul noo juloon gànkul te yelle sewul kaloor ya ba bàyyiwul moo jandi yallaaw moo jëkkab taxawaay day kem ñeneen du xasab réem di neex njamal yàllaam la yallaaw moo jëkkab taxawaay day kem ñeneen du xasab renjune jaak njamal yàllaam la yàllaawo ak jaalu yàlla ak siiña mu ñuul ma ko dar ak tuyu jekk ak mu ñaay ba yàllaaw mu ñaay ba day sam ne lox bi gëb ci xiinu marax reen ga gàcceel na lampab gaasee leew jàppoo néelu bay salfeeru badriyatin loxom ba ja palak baatam nga yàllaw yéenam yu sëq yi ànd ak la far di melax lexam yu rattaxi ak leeraay ba yàllaw boppam bu mërgalu baat noppam yu rëy yëcce sax gëtam ja buy wal ba teeg lam sal fa yàllaw wala bakkan nga def fëni sam ne taali wurus sikkim bu jekk ba ak faasam nga yàllaw diggante yaari magam yaar xaatimam ba ñu daw ca diggi dokku ga muy saw tampeelaw suufami jëkk ak jangam yaatu yaag dajari tal yaag ke looram yooyeelaw suufami jëkk ya ak jangam yaatu yaag dajari tal yaag ke looram yooyeelaw doxiinu jëkk wa ak ndaagam la tepp ma woon doxiinu ramutu lay dox bir na yelaw waxinu doge baata mu neex ba mu yor lamiñu gàtt wa ak caleem gayeleew léebul barul dotomul nasul derul taquloon baatam laxul suuloon señul fayeleew léebul barul dotomul nasul derul taquloon baatam laxul sewuloon señul fayeleew ndigam lu jekk la cey ndigal samaam la mu yor luppam yi jekkee ak feeram ya yàllaw loxo mi jekkee ak waaraam yi sewe ca sax yeenu xof gu muy koy lew yi yàllaw moo neexu ban ku nu yoog yoon na ndigay mbaalak day saafan jeeka jaman jeek ya yàllaw ku mu raay sa man a jëm ku mu taab li ñaanal la doo من دار دار في السسير منك يا الله وسلم بتسليم هلي بي وروير بريان يا الله ma wax fi nag ay jikkoom yoo xam ne tuut la ba tey ci ay solof ya ca mawlid wax ko yàllaaw xadu kaana njool makka sallallahu laa ko mënal aleyku la salaatin la lamboo te nooy te dër te foog te jàmbaar te lamboo fullee laaw kersaa ki tegin la lamboo te nooy te dëgër te foog te jàmbaar te lamboo fullee laaw dadaa torox la digaar dallam di déglu ko jam digaar malaane di sol yi ñu daa fayalaw dadaa torox la digaar dallam te déglu ko jam digaar malaane di sol yi ñu daa fayalaw di ratti gàttam ya ànd ak sa vieey fegi dey di yewi naagaab di fekk baxlaam yayalaw di war ca baxlay ak naagaam ya daana dal di war ca baam ya di ànd ak nit ña yàllaaw yiisaa mu sol mbaxanaam yiisaa mu gaalawu bis yiisaa mu jartu di boppam neen fa yàllaaw yoosaa mu tëdd fi suuf yoosaa mu tëdd ca kaw yoosaa mu jéggey xalam yàllaaw yàllaaw si lekk day woote daawul gis mu lekk ci tem yaari yoon sa kaye teeg wuur fii lekk faw ne bismillaahi door dugal alhamdulillaahi lay noppee fa yallaaw Isaa mu lekk di bokk ak Baabakar wa Omar Usmaanu summa Aliyun bir na yallaaw Isaa mu sey noog Asan lay wa Faatimatun Isaa mu bokk ak wóor na yallaaw mu doo hëppoon doole ci te daana ko am ak yàppa nen kazaat tàndar ma yallaaw dadaa di woo laj koloñ ak diw li du seenu bés léeg-léeg mu tàggoo toog waa kafuur yannaaw dadaa di woo laj koloñ ak diw di nga lu bés léeg-léeg mu tàggu too wal kafooru yannaaw dadaa di woo mu tàggoo toog nay jaaro yuy def njog te daana ko sol tey nag su njog la ci biir te xam la ya naaw diggante day joor ba accamuñ ba lépp ci yem fu nekk daana ko sol jaarom ba ya naaw su lekk jël ca ci waaroomam di di sex ti bam ñamam mas la laar ya naaw kem ñetti guux mbaa ñanant naan du naan di taxaw mbaa niw na mbaa ngant doon bir ya naaw fëytir ya daanu ko mos meññet ya daana ja mos resañ sa feeb gaal bu neex ba gañ saya daaw lii lépp kan ñàkkuloon lum lekk fu xulewul da daa weer lu daab yërmaan daya daaw day miin way ñàkk yaak miskin ya kenn du ko daw diraay jiim ya di toog ak jaam daya daaw di seeti way wopp yaak jaar jaay mu mën a xaw dina mu way dee faatoo foo way xaw di seeti way wopp yey jaar jaay fu mën a xew dina mu way dee faatoo foo way xaw lu xeeb du naw te du naay nit lu xamul abadan boo gaa salak lu ca kaw askan nga laaw du dóor du mer te du mer loo jit du gett du lor du xotti saatir du yàqab der waaye laaw fii mer da daa mer ci mbir moo xam na yàlla da jaar mer mu sabaa ko moom sabaa yàlla fii bég da daa bég ci mbir moo na yàlla da jaar bég mu sabaa bég xam na yàlla da ko gërëm mu xëy gërëm mu gaa yàlla nekkum dajal faw mu la jëkk ñu si bu wér tey saafanteeg jàmmanteeg ay laaw def làqi moroomam was làqi moroomam was làqi dëkkaale ngir gaay laaw ñu xiiba xiib may taxañay bët ci lañ ci yaram te xam na moo amee caabi goom gaay laaw xiiboon na may tey lay mu bëgg di leen delluwaat teer ko saa rabbi naar si yàllaaw saadul fuduuli mu ba mu gay la woon la ca gow fa xëy dugub xaw na faawel boo bàyyi laaw ne si janoog la ko mbooleem doj yi yëpp dikkal maa mel lu sot wurus muy bay faay laaw war naa wa dadu ci baalul summa min shaaqin hal si fala allahu ya laaw kulii bi la woon moo dadu àdduna far ya laaw وأكدت شهده فيها دلالته laa jal borom bu dusu yonan baya laaw bu guddi rakkalawoon buy julli daaw fa jóg addastakat xadama aduraya laaw bu guddi rakkalawoon buy julli daaw fa jóg addastakat xadama aduraya laaw ak naa fi laaw fukki rakka ñaaloon abadan yeesu léppul taxawaay baay ak yeyannaaw xutbub jumaam daf ko daa gàttal te wax ko ca kaw ba ñëpp ko muy ñaaxaate yannaaw way kuri moo day fa moo man te soppi dëkkam bay saafaray ragg tey faj lor sa yannaaw dadaa yaram daw teral màggat fayal ko borom di fa jirim yaaka may daay bi yannaaw di la tubaayo ak miskin ya fuñ mën a jëm di topp too ba ñooy ak njërmeel ya yalaw du wax lu dul dëgg maandu maandu bay safu rab doo gis mu war ci dëhëm bilaay ya yalaw du lekk yàq du lekk um rab mbaate sarab hadiya lay lekk mook saabaam ya yalaw waa taareet naa dogi am mu yaramal ساسي ينامك يا الله وسانيت ما بيتس لمن عليه به ربي رياني على mawrid ba jeena te way naa lépp lu nga sorom ba way xaraay ya yoon nem dafa yàlla mbir mu gis saat rasulullaay kenn du ko xam la yenn tiire laay dafa yàlla déglul ma la xawaarit tey na naa saar ci mustafa al mustafa muxtaar lam takku fii man مدى ولا لا ثمن ولا انتهى لمن ياتون الله amul ci gaay amul ci fi des xam di junni la ga min asalaam hijaaraati alayka saa kama shash jaarina lil musallallahu bëgg yaa nga koy nuyu na jaamal garab ga di dox di jëm ci moom di bokk na ci mu ci saxaatam weer wu xëy na tasar def yaari weer wow sow wow penku yàlla jàngal xamar kon nga gis waa màkk war dañu wax mel naa jabar lu xar baa walla yàlla bokk na ci mu ci saxaatam yaari yoon la ko def deroon na jant bi ñu dem dellu yàlla bokk na ci mujj saatam yaar yoon la ko def delloo na jant ba ne dem dellu yalaaw yooyoon haliya boo sitta yi ni moo ko waral wee saaba yam yónni woon liy jëkki yalaaw bokk na ci mujj saatam nii de daa ko keral ma dëkkeel daa nuyoo moom booba yalaaw bokk na ci mujj saatam ndox mu bare ci ay kenn te dàq li suukar waaye laaw ba ba nekkee mu ngi xaatam ña mu nekk ci ndam yonen ba tibb ko muy sabaale laaw mu ngi xaatam kenn naa ko gubar ba ñëw laaw ba ba nekkee mu ngi xaatam kenn naa ko gubar ba ñëw këram di taam siilal laaw ba ba nekkee mu ngi xaatam daa ba ñëw ko looro ñangi ñangi ne nu ma wàcce yàlla bokk na ci mu ngi saatam naa ka jox ma sawar saw bu ne fale ngir maal ko ya yàlla bokk na ci mu ngi saatam bàyyi naa ña di wax ki lan jaree sàmm bés ya yàlla bëgg na kii mu gis aadam bëgg buy xërëfee di ko xàqat wax ko yàlla bëgg na kii mu du ko dal du dal ci siriya du yor ba yàlla bëgg na kii du ko jam dee felag yoodu mos damam ga yàlla bëgg na kii jaan ya daanu ko daw ji jànk daar war waraat luy tookee moom rokko na ji mu gis saatam ay nganaaw di ko ñëw di jébbuloo kay si yaa yooyu dellu yàlla rokko na ji mu gis saatam jinne daanu ko ñëw di jébbuloo kay si yaa yooyu dellu yàlla bokk na ci mu gis saatam ay malaaka ay malaaka di ñëw riwaa bi ñëw di siyaa rey dellu yàllaaw bokk na ci mujjizaatam ay malaaka di ñëw riwaa bi ñëw di siyaa rey dellu yàllaaw bokk na ci mujjizaatam ay malaaka la woo keroog bada ñetti junne wallu yàllaaw bokk na ci mujjizaatam yàlla daana yebal jibilu muy indi ay laxbaaru yàllaaw bëgg na ci mujj seen rañaan ma dem ila samaawaati mook jibiilu yàllaaw bëgg na ci mujj saatam alburaax ma mu war muy ma samaaw dem del si yàllaaw bëgg na ci mujj saatam kër ga noon ya gaw mu jéggaleen ca guddi gadaay na ci mujj fépp suufu mu jot keroog nay nim mu rey noonam ya yàlla bokkoon na ci mu gis aatam dem ni këram bu ñaan mbiram ni fa naa amiin na yàlla bagana ki mu gisa dama dem fa ni këram bu ñaan mbiram nekk ba naa amina ya Allah bataaki mujisa kam dem fana ni gërëm muy ñaan bi leen nekk bana amina ya Allah bokk na ci mujisaatam waa ju ñëw di ko nax di dong dong lu far dem dong ya naaw bokk mu gisaatam waa ju ñëw di ko baw mu daal di koy soppi ab xaj foofa ya naaw bokk na ci mu gisaatam waa ju xiir ko ab xaj mu tor siisam ya ya naaw mu gisaatam waa ju ñëw di waa ju koy tëru gis mu xiir ko gaynde mu daal koy fàtte ya naaw bokk na ci saatam waaju koy tëru bis mu xiir ko gaynde mu dal koy su ñëw far dem gaana yannaaw bokk na ci saatam waaju ñëw di ko nax di wopp wopp far dem faatu yannaaw bokk na ci saatam doju seyu mu faru ñu dégg doje di sabaal foo fa bokk na ci mujj saatam menn lee ca junni bu xiifoon booba yàllaaw bokk na ci mujj saatam menn muur bu mu yor nandal ca junni bu mar bañ mandi yàllaaw bay wu yooyu fa ñëw mu la mu soow ma yàllaaw bokk na ci jargo ñam gallindol te dox ma tàbbi ceroo kunteem ma yàlla bokkoon na kii mu gisaat kuy dawal di ko daw suuf daal di koy mook jakkee ja yàlla bokkoon na kii mu gisaatam ay xiram yu mu toj sabadu makkata ngir joxar bi yàlla bokkoon na kii mu gisaatam teen bu yàqu ba woon njool makkata li ca muy fa yàlla bokk na kii mu di saatam yedda woon ca badar mu jokkoo gaasatu mu jey gaasi yàllaaw bokk na kii mu saatam lum defoon ca uhood loolaa di loola ca abdullahi yàllaaw bokk na kii mu di saatam dekkaloon na ku dee moo yaari wa jur yalil imaani yàllaaw bokk na kii mu saatam taw bu det bañ a fer ba muy xay bés ca kaw ñaanam ga yàllaaw bokk na kii mu saatam saaba yay bëgg a xas malaaka ya far ngaaraw ga yàllaaw bokk na na kii mu saatam mas la soxla woon ak lum taf li maa lum bokk na ci mujj saatam gëj a daana nelaw te xol ba moom du nelaw fu mu toll yàlla na ci mujj saatam mas la soxla woon lum tafli mbaa lum fa def suufa na yàlla bokk na ci mujj saatam mas la jee si wetam te gis kanam ak gannaawam bir na yàlla bokk na ci mujj saatam suy demit ku ko dab tànkam du feeñ lu ci aw doj bir na yàlla bokk na kii mu aadam gaay abraamin ne leen ñanaaw ya defoon ñoo ñaye yàllaaw ñanaaw ya dañ leen a sànni doj ci xurwa ju dee xar gaañi bopp ya falas ñaye yàllaaw ba dab xataada te mas naa lang bay bëggaroon keroog may nin mu delloo bët ba yàllaaw moo tab yaay dara ba wér yoo ma lay bare woo wànnen wa wér na mu rey moo noon ya yàllaaw moomat salmata ba weer matu doomi man ak Seydu moomati Abdullahi moomat salmata ba weer matu doomi moomat salmata ba te mooy garag noon di Sayfullahi yàllaw mooma ci jaabira mooy jabul kasiiri naham te mooy garab noon di seyfulaahi yàllaw loo maas ba dagon moo ñaan mu dellu fa sax ndodam xabiibin ma dagon moo ko yàllaw loxo maas ba dagon moo ñaan mu dellu fa sax ndodam xabiibin ma dagon moo ko yàllaw jaabir gëliimam ga daf daaraw te mas la njool ma geñaanal ko muy raw faw yàllaw anaskeram dañu daa njërmeel ba daawuñu jur téeméeri doom yam ko ñaanal xam na yàllaw anaskeram dañu daa njërmeel ba daawuñu jur téeméeri doom yam ko ñaanalam na yàllaw jabir jabar nga ko tàndar maam nga daawu ko ñam day mel ni mooy sàkku doo tul rek fa yàllaw ñool makka yaa maccu Abdullaay nag looji ci maccu hutbata ak masoo doyalaw masaa yaram ba mu wér di xeej abadan sikki ki banam xëy faatu yalaw mettitu bopp wadaa dikkal sawaaja gëmam te moo di laqraawu yaa delloo ko yalaw baay qataadata fettam googa yaa ko wéral jëmbalañ fett bam yaa ko yàllaw ndoomas unaysin di abdullahi yaa ko wéral hudul ko nag mustafa day faatu yàllaw waataarin naadari al mustafa karaman daraat bi ar fin ينا منك يا هلاو وسانيتنا بتسليم عليه به وراويه روحبي رياني يا هلاو ku déglu déggati tey jii mu gisaat yu mu wax te mu yàgg seekuloon tey xay bu ku daglu daglu ci tey jiibal si gaa mu wax te mu yàgg seekuloon tey xay bu ku daglu déggati tey jii mu gisaat mu wax te mu yàgg seekuloon tey xay bu njol makk moo noon abi bikirin ma gisul yaay def xalifatu ba di woon keroog ba njool màkk wu jéey yàlla ñépp wedam banno ummi yete ñëw jaayante yàlla njool màkk moo noon xomar jalay xalare jaamam mu xiirata lay doon wóor na yàlla rew ñi teg ca kem ak yetti dit ba saxar jaamam mu xiirata caw koy jaasi yàlla njool màkk moo ndaxam Usmaan la way xalarey sa kër la yalaw marwaan dalay ruxaleeg waa réew la waxoon nausu billaahi min marwaan yalaw marwaan dalay ruxaleeg waa li la waxoon nausu billaahi min مرواني يا الله نيول مك مون حليون واجلي خلري ci naq talbi la lay caw jaasiya naaw ñu teg ca fanweeri at ak ibnu maljama caw jaasiya ay dara xar boppam baya naaw njool makk moonu na sem yow nit ka sa soxna lay doonte daf lay toog ya naaw njool makka moonu nasan yow nit ka lay xalarey sa soxna lay doon te daf lay tooke yàllaaw ñu teg ca fanweeri at ak law Muawiya ñëw xëy tooke loo kaasan bam faatu yàllaaw njool makka moonu nasan ay xalifaan ca kanam seen xeex ba yaa leen di jàmmal wóor na yàllaaw keroog ba gaa ñuy xalifa gaa ka xuloo xasan xalam jëbbalew jàkkam fayalaw njol makka moo noon Huseynu génn dem bane mes ruugaa nga ñuy rok fa Karbala ayalaw noon yaa gore yow maa suura a Karbala woo dag boppa yët ko yësit ca makka ayalaw noon yaa gore yow ma suura a Karbala woo dag boppa yët ko yësit ca makka ayalaw njol makka moo noon Subayrook talatum abadan dangeen xareeg ay daraak gaayam yaya laaw yowmal jamal ñoo ñu xeex ak hay daraaku nitam gaayam wóor na ya njol makka moo noon haw bi dey baw saa soxnaa isetin ndaw njombe ya laaw yowmal jamal haw bi yëgdu baw mu war gëreem gaaya fartumaan ko ya laaw njool màkk moo noon ximaar gis naa kuréel bala rëy kuréel bu bew lañ bu mat ay junne yàlla xare mu xaawiye ñëw bew rey ximaare di wéy xam ngeen na njool màkk moo xam xayi bu yàlla rew njool màkk moo noon ndaxam saa bi mu jëm ga sayit xarem yamaamata lay faatoo fa yàlla rew njool màkk moo noon ndaxam saa mu jëm ga xarab yamaamata lay faatoo fa yalaw xarab bu saydu ba dis ka saabit moo mën a fen ak Baabakar ca saabit faatu yalaw xarab musaylimatul ka saabit moo fen ak Baabakar ca saabit faatu yalaw mooy waaja daa yonen di fen yonen waxoon na bisu faatoom ga yalaw borom na jaasiw alkisraa ba ñuy bëgga dee njool makka tàgg na leen saabaam yaayalaw njool makka moo noon danaa leen tàgge noon badar bésu badar kay di rey diw fa yalaw njool makka moo noon danaa waxay sa kenn du ko lu metti metti na ànd ak dëgg yalaw keroog si aat yónni abdulaay ngir bëgga lor xay san mu faatu gannaawam wóor na yalaw xanaa i joor naka jeexil mu gisaat ya du mat ma far taxaw loo ci way tax siis yeyalaw xar baaxi njool màkk jeexil mu gisaat ya du mat ma far taxaw loo ci way tax siis yeyalaw waatari nadariyal Mustafa karaman dëwran bi arfin safiin min gayalaw wasalliyan nabi taslimin halay bi warawiiro bi rayaani yalaw déglul maxlaati jagle yu Mustafa bindeef jagoowul ko fii ak waani yàllaw taxsise bur yàlla jagleel Mustafa calasal moom rekk moo ko jagoow moo jag ba yàllaw bur yàlla xam na ne dooley baatinam dafa moo tax mu jagleel ko taxsisam ya yàllaw malaaka ak jinne ak luy doomi aadama ak jagoowuñ ko ak waliyu yàllaw yónneen yaam nañ ca aslëf Mustafa yi biir wàlli yu mos nañ ay karaama yàlla ngir mu di saati rasulullah yu mas a def yooyu ay karaamaati lawliyaa yi yàlla xar karaamay lawliyaa la yemal day na janaa bay mbiroo ak xiiru yàlla moo jëkk yónneen ya moo leen mujj moo ko jagoo mooy maami aadama maamam wóor na law teewam gaak fardu gaayam du fi jóg diineem du man soo kasha qur'aan wu yalaw bur yàlla giñ na ci dund ak Mustafa du fi jóg la hamru kaadun ngiñal buur yàlla yalaw buur yónnee seen njéeréer man soox nañ baatee daj diiney muhammadu lañ fiy topp yàlla yónneen yàgg nañoo seen alxuraan ne melas furxaani ahmadu mooy quraan wa yàlla mooy yónneen képp nit gëm ngeen ko moo ko jagoo malaayika ak jinne moo leen saytu yàlla yónneen bu nekk ku xeetam ak mbiram jamono njool nakke ñëw boole mboolem xeet ya yàlla rasuulu wa nabiyulaahi moo ko jagoo xaliilo wa habiibullaahi yanaaw njool makka mooy jëkk wax bale te yow ma alas tu jëkk yonen ya ak waliyu yanaaw xeetam bi ñooy jëkk def aljana xeeri ci des ñooy gën ci xeet yépp fil quraan yanaaw mooy akramool xalqi xayrul xalqi moo ko jagoo makka ak madinatu moo fa yàllaaw ñooy mu jarap ci duniyaa bés bu bëf tadi wal julee ci jàkkaam xëppab yool fa yàllaaw moo moom safaat marwataak sam-sam te moo ko jagoo ak kaabatul laayi ak jàkkaam ja yàllaaw mooy saayibul xaaru wal quraani moo ko jagoo mooy saayibul xaatimi mahroo fi yàllaaw mooy yabeetul lawni mooy jaddal Huseyn Hasan abol batooli wa ibrahima yalaw mooy yabeetul lawni mooy jaddul Huseyn naam abol batooli wa ibrahima yalaw mooy yabeetul lawni mooy jaddal Huseyn naam abol batooli wa ibrahima yalaw moo badul sayyidu sadaati moo ko jagoo muhammadun saayibul buraaxi yallaaw muhammadun seydu sadaati moo ko jagoo muhammadun saayibul buraaxi yallaaw muhammadun seydul kawnayni moo ko jagoo muhammadun seydul lahraabi yallaaw muhammadun saafihun linaasi moo ko jagoo muhammadun saayibul janaati yallaaw bur yàlla bind na mboolem turi Ahmadu ab cawun ci aljana ak néegam ya yàlla foo dox ci aljana gis ci kër ya Ahmadu am ak jagle ya ak may ak sañ-sañ ya yàlla fuñ toll marke fa baatu la ilaha jumat ànd ak Muhammadu fil janaati yàlla kursi dañ na ars dañ na turam ya mu am wal malki wal malako ci dëhra yàlla daraja tur yàlla ñuy sagaale julli moo dundariya tur yàlla ñuy nokkee fa ci ak garab ya ca kaw seen xob ya tur ya la ñuy sagaale yàlla ya ca kaw ak doj ya tur ya la ñuy dundaate yàlla loolu nag moo di imaamul xiblatayni maan dunya wa uxraa dunya ki laaxira mooy leen moom fa yàlla njool makka moo di imaamul qiblatayni maam dunyaa ki laaxira moo moom fa yàllaw fu Mustafa jublu foofaay xebla moo ko jagoo leere mbirum xebla moom lay wut fa yàllaw penkook sowook galandoo ciy bokk jublu këram kuy julli mooy ko safaanook xebla yàllaw ni faatiyaak aayatul kursi moo ko jagoo ak kawsaraak aamana rasuulu yàllaw واغفر لمن يا المصطفى كرما دارا بعرف ششيد من قيمه وسلم بتسليم علي بي وروي بريحاني الله ma wax la lëf ma wax la sañ-sañ ya yónneen sañ ci àdduna ji yoo xam ne deefu fi diini yàllaw ma wax la sañ-sañ ya yoo xam ne deesu sañ na caa jaar sa kaw xumusam moo moom xalal jëcee baytil maaleelaw yonnen du donn te donneftul ko luñ miraas yonnen du lekk sharax bil maaleelaw te koo sanoo xam lu leew yonnen ba moo ko jagoo te xut ba woo mbaa xamoo ay seeyalaw njol makka moo saña def xaadeem daa te bopp biram di seere boppam ci ilmul xay bi yalaw du géñ du kaafara sañ naa seera loolu mu jur lu wax mu dog alluway ma foo seelaw njol ma kere kay taxaw mat yaari seere yu wér mbaa yetti seere yu maandoo maandu yàllaw moo sañ lekk sakaatul hayni mbaa asakay mbay mbaa jurak ay jirim tem lew fa yàllaw moo sañ a denc lu mat soxna yu gor ngir moo yirif gaaya fentoon giir yaya naaw foonante laalante ak bànneexu moo ko jagoo ci weeru koor mbaa ci xëlwaab woon naya naaw ñëw nag moo sañ joojoo weeru koor te du fay fili ci gaaf sañ na caa bànneexu ya naaw sañ naa tasab sëy ba xëy law sa moo ko jagoo ndem xol ba sopp na ak den cam faya laajal ma sëy na bu moom زيد بن حارثة yàlla ko may Moustapha fin xar si yàllaw te xam ne Seydoo ko dencoon yàlla dal ko tas jàngal fa lama xabii Seydul fa yàllaw xaraam na denc jigéen jum sopp moo jagoo fasee ca war dal jox njool ma ka yàllaw xaraam na dencati soxnaam yum yor na badan dawal yeral sóoratul la saabe yàllaw xaraam na kum taara woon taana woo ko warul kum sopp saflar nga dog moomel gayalaw ku denc doomi rasulullaahi daldi taxaw dootoo jëlaat mbaa nga wut ay taara yalaw yi jagle moog yépp yonnam ñoo ca yem abadan ku denc seen soxna dootoo kiilu yalaw njool makka moo saña laal ak du tàgg ndeyam du tàgg baayam du gis xeetam yayalaw moo saña te du laal am ndox te julli ga wér leeram ga moo gën a am ndox ba yàllaaw moo sañ a jàppi nelaw ba mu julli fajar te laalu tam ndox te tiimul wóor na yàllaaw moo sañ a fekkaalal jumaa jofab ko diwe faytil borom ca bisub laaj ko ba yàllaaw njal makk bakkaar war loo sa wa deesu koro yi lum tayulet lu mu tey lum fàtte yàllaaw julleem du yàqu te waajuy noddu te du turam mbaa kuy liqaam mbaa ku dem bay taaya yàllaw ku tudd yàlla te tuddoo Mustafa du ko saf sara alayhima la saabi yàllaw ku julli taaya ba selmal julli woo abadan jéem julli woo ci rasulullahi yàllaw ku ñaante ñaanoo ci barke Mustafa du la may ku jaare yàlla feneen du wiy fa yàllaw ku ku ngañ yonnen ñor laa rey kenn du la kim sa ndama nga xarab fi naar ye yàllaw ku tagg yonen mu war laa ram mu duñ la bugal doo tabbi naar yeeki doo too joote salaw ku soobu jool makka boo jee tabbi jannatu oo ku noonu njool makka booy jee jaaru yàllaw tuubaa ba tuubaa liman xaraba madana waylun fa waylun liman hadahu yàllaw ñool màkka duñ kon duñu ko joor duñ wax ca kaw fu mu ne duñ yëkkati waat yu sut waatam ya yàllaw ñool màkka dee su waxtu fajar abadan ak diggi njoloot gannaaw ak tarte yàllaw ñool màkka di su fa nekk toog di wax lu ñorul jàngal ma fantasiroo mba joor ma yàllaw ku koy siyaaraati day diisoo taag sim yoo te yëg bam ne bismillaahi yàllaw loolu màgga dee su ko woo naa yaa di turam ngir duñ ko sàllawlu fii diwaani yàllaw moo tax ba yàlla di wax ya ayyuhaa di ko woo ca alquraan ngir teral njool màgga yàllaw yii fukk moog wàlli yoog yon nan ya di xuus leen nga dof farfaatu yàllaw njool màkka gis na aminul wahib dëggi jëmam njol makke nee gis na israfila yalaw jibrilu xar na benam tabal ca yaari yoxoom ay yoon yoon moo ko da daloo fa yalaw jibrilu nee gise naat njol makke yatiet kem ni ti junni bi yoon nuy wax fa yalaw jibrilu nee gise naat maam sunu Adama it nuy wax lu mat fukki yoon ak yaar fa yalaw jibrilu nee gise naat Muusa kaliimu lu mat ñenenti téeméeri yoon nuy wax fa yàllaw jibril ne ci semaat idrisa ak kañu naa yanqooba nuy wax yenenti yoon fa yàllaw yi jale moo jëpp yene ñoo ko bokk bu wér faalaw li yaa uru gis jibrilu yàllaw njol màkk guñ ñu nataal sakkaa di porte far xar baa xamam ay xiram lii wóor na yàllaw njool màkk jommal na saytaane kuréel ya mu am saytaane man la niroog jëmam jalaw ngir moom yaram wa dadaa soppi ku waxu moo raw mbërëm kakataar kii fan ngir moom yaram wa dadaa soppe ku waxu moo raw mbërëm kakataar kii fan na yalaw makka moom nu ko neex mel bir na xel lotal na waykat ya xar baaxam ya yalaw yónneen du ànd ak cangaay yónneen du bilbili far kuñ tudde yónneen ba doo dem naari wa yawma yunfaxu fii sóori du mooy jëkka jóg moo jëkka dekki di sa dekkal bayalaaw ko daay aljana moo cey jëkka wabdu bu wér gannaaw ga maam sunu mooy jëkka wal alburaaq yónnente sant ko wal ci siiñi daaba ñu jëm bés penke mooy jëkka jéggi siraati mooy jëkka weyi moo jëkka tabbi jinaa ni laayi mooy jëkkëram bu keroog be denc mooy jëkk gis rabal wara mooy borom tuuba fayanaw mooy jëkkëram moo keroog benn denc mooy jëkk gis rabal wara mooy borom tuuba fayanaw mu jëkk tuuba bi may seetaan yekkee yekkee des xulul maa bi law yallaahu yallaahu muy dëkke Tuubaa di may saabaam yow kër yekkee des xulul maa bi law yallaahu yallaahu mooy mooy jëkka naani ca déegu kawsar ak nitam yor pari sol bay li waa ulam bi yallaahu mooy jëkka def moo tax yàlla bind lu ne law laa uma xaalixal la shaa'u yallaahu taxawlu naa fii ni jéegoy Mustafa ku ko xeñ ba tàbbi aljana war ngaa santu yàllaw aljana di su wax làmmiñ wu dul caarab waxiinu njool màkk lañ fay wax fa yàllaw aljana di su fa jàngab téere benn budul xurxaani ahmadu lañ fay jàng yàllaw yàlla ko dëkk ak sëriñ Tuuba ca kër ga ñu naaf Tuuba mu dëkk ak rasuulullaahi yàllaw amina amina noog sëriñ basiiru mamam ngir moo ma santoon ma way mawlid bayalaw waxatari na dariyal mustafa karaman dëran jaar fin sasim min gayanaaw wasalena bi taslimin halay bi wara bi rayhaani yanaaw mawlid ba jeenam te way naa lépp lu ma way xawaarix te yónnen defa yanaaw mawlid ba jeena damay way gaaye jébbulu won ci mustafaal mujtabaal muxtaar yanaaw ci mustafaal mujtabaal muxtaari yàllaw te ñaan ci seen barke na bur yàlla tax ñu ca ñoom yégal sunuy mbir ca seen pas-pas ya yàllaw yaa xaadimal mustafaa laatan sa gaa yi badar ku fàtte saaba ya say way perde yàllaw bismillaahi ci barke tur yi may bëggalim laa ñaana bamba mu def mab janto yàllaw déglul ma wax la ñu toppoon mustafaa ca badar ñoom maandu ñoo gore ñoo jàmbaar ya law ñoo sopp njool makkam ñoo gëm yàlla am jërëjëf ñoo xàll diine ji suul kéefar gi ya law ñoo gor xërëm ya xareek jàmbaar ya xunti ya daw ñoo toj tatay doj ya jam yéefar ya ya law yu bon ya saxal islaam ba génn jëlew saxal saxal ba ay farataak ay sunna yàlla ku leen xamul na ma jox noppam te déglu ma lim jay sun wa day sun waaye sun xil la yàlla te loolu mooy ñetti téeméer fukk ak lu tofal juróomi nit mbaa juróom mbaa ñeneen tan ñetti yàlla seen xeex ba dee su jàngat kon de way wi du mat damay biral gaaya xeexoon booba yàlla bésab di beer la rasulullaahi woote badar ñu dagg xas la ca ngoon bis ba yàlla njol makka gi na ku dee tey tàbbi jannatu woo mi jaay ko seeni waggan ak jur ga yàllaw guddi keroog la rasulullahi bég la ba xax mboolem sahaaba ya bég bay sànko yàllaw yéefar bu nekk moox firndey la koy xalaray jullit bu nekk mu yor ruwam ga yàllaw mbooloo ma doon jox loxe kay daw mu nettali leen malaaka yi wallu ceeb jibriilu yàllaw alfun alfun wa alfun baaduroo ji yafan loolee la Seex Bamba wax fii cey mbër ma yàllaw keroog Abubakarin Sidiiku moo jëkk a jóg jaayante mbooloo ma jóg jaayante yàllaw Aliyu Aydara gaynde góor ña baa yasal borom jaloore ya moo xeex ba yàllaw keroog la daal dina góor a kama xam maa man ko weddi fa dun xaaf ba yàllaw Faaruqa doomi Xataabin kooka moo di Omar moo na dëgg du maasum kàcc yàllaw isqal busmaanam fiim kan wusaati loole la Seex Bamba fi nas ni yàllaaw usmaana jëkki ba di wattu ñoñam xolam di xeex ca badar ngir sopp yàllaaw jubayru talatum wabdu laa fi ñëw badar saadun sayidun aminun ñëw na abu hubayrata lay si laayim may baayab taxa mustafa jambaar ja yàllaaw sulaymun wa maalik yaay sun wa kasaaf jaabir wa jaabir jubayrun ñëw na yàllaw wa haamirun haamirun ñaar ñëpp a fekke badar ak aarisun aarisun huraysu yàllaw liman unaysin waay dunoo batuhum ndax yàlla lim nu ca ahlul badri yàllaw wa kaabum وصيم عاسم وبلال نودكت بيلقاء نلمك يلو بجير جاري سعد ياري عاسم نيو بشير ياري تميم نيونا يلو سليم رباب ياس الخم نوز شراقة هدي هيلان يلو سنان سبرة سهل أبو جيبهما أريان مان ندر نيونا يلو سيد شياد لمال المهبد وكسا أبو قسيمة وإمداد يا الله جول شيد شيعات حقبة أنس قتادة آمر شفان يا الله سلم وشول خلاص hutbatun wa kasaab xiraasu maalikum maasu yalaw wa maalikum hijjawun wa mirsadun wa kasaab kamaabadun maqadun maqalun miqdaadu yalaw mu'tabun haatibun rabaatun amarun wa xaalidun saabitun maasu yalaw wa maalikum mishanun ومالك المشر رفعت وكسا نيران تنين تدي عبد الله ينو خلاد نيونا يشيد نيونا منشر نيو سليم نيونا مولاي لوك مستولاو ابو قيل ابو سنورافهم ابو سليك ربيع البينو ولا وهارس وتميم ثم هارس ثم هارسة وصوصب الليل وسيد ينو لا تنسى بسبسة وراج وبراه waax san nismatun ubayyu yàllaw bul fàtte jam sañu naal Seydu Ibrahima Sekin jàmbaajee so Badar ngeen so bu Muhammad Asadun wa mihsin wa mihsarun calawoon ak Seydu yàlla yow wa wahbun wa masoofun ñëw na Badar wa abdatun wa habibun ñëw na yàlla yow wa asis summa suhlabatun abo qusay aw su ñëw na summa masoodun wa haarisatun xalaat waa amoon jom ñëw na yàlla hukaasun wa jubaabun yaari haati ba ñëw aboolu baa matab ak maasu yanaw xudaamatun wa yasidun saabitun wa kasaa aboo xataadata abdulaayi yanaw salanu hayshat سنمارس شواد فروة هبادة وسبيء نون يلو خلفة وأمير سابس وكسا همر وساد يشيد نون يلو مهوس وسليت ما أنشئم همر إياد بهير هبة لو هويم سما سمار شيادهما شر وسيد إياس نون يلو أبو لهنة عثمان الفتاة بدر مجسر مجسر وخنام عارس له متيس متيس شم سفير كساك أبو داود محاقل باس يناو ولبدة وأبو أيوب همستهم مهتب وأبو محسن أيناو خباب شقوان عبد الله شم أبو سيخ شواد أبو سيخيس أيناو أبو لشبرة عبد الله أبو لشبرة عبد الله راجم xusaymu haarisu abdullahi yàlla raw tofal ca masooda abdullahi dolli ca abdullahi dolli ca abdullahi yàlla raw wadiyatun wa abo salmun maasuumo wa haarisun suma abdullahi yàlla raw abun li kabsatam nuhmaanun yasidumo humayranur abdullahi yàlla raw wagun tofaylun wa abdullahi haamirum hilaalu xalaadu abdullahi yàlla raw hasimatun wa yasidun waaqidun wa kazaaka ثاني حارس حارس يشيد يلو حيث أمر وأبلاي وقدتهم وادختهم وزائب وابو سنان يلو ابو العشم عبد الله حارس يسير امر هبيد شرم يلو وارث سم عبد الله حيث ما وعبد رب طفيل حقبة الله ابو لخارجة ابو لمرسدة حبل عبيد ومير دمرة الله زاد وساد وشال حامر عمر ايتهما نهمان حبل لو أبو الأهول أبو الأيم شما أبو خلاد شما تفي لنشن ويلو أبو العنة أبو الأي حقبة عبد الله وأمر نيونا يلو أبو الطلحة عبد الله مالكم مهاس وحمر ومنشران يلو سود وأمر وعبد الله نيونا بدر ورضي الله عنه شما يلو رضعة ثم سعد مصب وكسى هبيد شهلبد ربي هو يلو ومالك وخليد راج وكسى خولا وقوة مسودان يلو شماك مالك خلاد وخالدهم موس وسريك ثابت له شجاع دهاك هبد لاي شهلبة أبو ليل وأوف شهد يلو شهد شهيل ألعاب آل amirun wa kasaas abootu laybin suleymu ñëw na yalaaw suraaxatun abdurahmaanin وارسهم شهيل حمد سليم يون يلاو مدلاج شمع ومصاد واج رفع جويبة عقبة سفيان يلاو أبو حبيب ودان وراسد ونوفر وأبو ضياء يلاو أبو لسرمة عبد الله آمرهم حمر أبيب أمير يون يلاو ومالك سالم مهنان خارجة واسمان مهنهمان الرحمن يلو أبود جانة داكم رضاتم ربي ربية عقبة مشاض يلو هبيل شم نعمان ومبشر شر وبسر ما أسابي يلو ودقدقيس وفروة لأحمد ما جبل يوم مع الأملاك يلو عندك ثلاثة آلاف أهل بدر فوق الجواد هو العيشوم يلو نجول ما كمينم كبار كبار فيك بدر بل كبار ma gudd fan aljana yàlla no gaay koy jàng ak ñi déglu yàlla no am jaglay borom tur ya ak seen boot ya yàlla alhamdulillahi rabbil alamin ala muhammadin ma ahlil badri yàlla nan sant yàlla te ñaan bur yàlla may nu ngërëm bi jaay wa bihim wa sayxi yàlla te may nu basiran wa mustafa wa fadlun am bisan wa safan wa fadlan minhu yàlla ma dellu ñaan bi rasulillahi martabatin bi aqasmaay xayri xalqi yàllaw sa ñaari téeméeri tur yaak benn lay bëgg a way yow Moustapha ndax nga may may tur fa yàllaw tilkal ashami wajan naa mun na maxatan te daa i daaw min atay ni yàllaw rajawtu fi nasmi naylal ula waridan wal qurba wal fawsa fi daaray ni yàllaw mohamad ahmadul muxtaaru hamidun mahmudun am wa ahidun rabi yàllaw wahidu maayin wahaasi ناصر واقب متى وياسين أبليتي يا الله وتعير ومتير بلا دنس وتيب سيد المخلوق يا الله رساك رسول نبي ورسالته للإنس والجن والأملاك يا الله رسول رحمتي للعالمين معا وقيم جامع أسرار يا الله ومقتف ومخفى نجا أبدا وهو رسول ملامين يا الله رسول رحمته في المرسلين معا بصدر هتيفر مسلين معا بكامل ثم بإدليل يلو مدشر ومسمر بكسمته هد إلهي حبيب الله يلو سمعت بشفي الله عن كدر وهو نجي كليم الله يلو وخاتم الأنبياء ورسل كليم مهين ومنجن من آفات يلو مشكر ناصر منصور أمته نبي رحمته للخلق يلو نبي توبته للمسلمين مع معا يدهاب حريص عليكم ثم يلاو وهو مسمام بمهلوم لسمتي وهو سن وهو سيد سيد الكل يلاو وسعيد ثم مشهود لأمتي وهو المبشر والبشير يلاو وهو نشير ومنشر لمن كفروا نور سراج ومصباح الله وهو الهدى وهو مهدي لمن سلموا داع منير ومدهون أي الله وهو المجيب مجاب مجاب والذي يدنا كساف ولي الله يا الله حق قوي أمين بل ذلك مام كريم مكرم أي الله سميته بمكين والمكين قصى سميته بمبين حق يا الله مؤول معمل ووصول بل سالك سو مكانة خوة صول شي الله سوخ صورمة ثم ثم سوخ صورمة ثم ثم شوفا على نسم وهو المتي متاو سمى الله خدم سقن وبسرى رحمة وكسى قوس وقيس قياس ربي الله ونعمة الله للمخلوق كلهم هدية الله للمهداة يلو سميته الهروة الوسقى لممتسك سميته بسرات الله يلو سميته بسرات المستقيم لنا شكر إلهي وسيف الله يلو شكر إلهي ونعم ساقب أبد والمستوى مجتبى والمنتقى وسيد وسيد وكساك سيدنا أمي من كرمام كسا أجير وجبار يلو أبو مسمع ibrahima xaasimi wa taayibun tayyibun lawlaa jiyalaw samaytoo bi safi safi samaytoo bi safi muslibiina maan musawon saafun yalaw yalaw wa saalihun muslimun muhaymin abadan musaddiqun saadiqun wa sidqu yalaw وسيد المرسلين كل وإمام المرسلين إلى الجنات يلو وقائد خري يدعى بالقليل نهم بر مبر وجيه وهو يلو وناسي ونسي والوكيل كساف كون كساك متوكل هو الكفيل يلاه وهو صفيق لنا مقيم سنته مستحدث سمر سمر القدس يلاه يدعى بكاف ومكتب وبهدوما وبعدهما روح لعقل وروح خزي الله وبالغ ومبالغ وبعدهما ساف ووسلنا ساف ووسلنا مولى موصول يا الله وصادق سائق هادئ للجنة مهد عسيس muqaddamun ayalaw mufaddilun fadilun hala wara abadan wa fatihun suma miftaahun ayalaw miftaahu rahmati miftaahu jannati samaytu allama imaani ayalaw samaytu allama yaqini huwa dalilu xayri mawlaahu fataahu xayru ayalaw maasihun hasanatil yowma suma qadan wawal muqiilu lisil hasraati ayalaw wasahun hani sala hani salaati fi abadin wa sabaati yow man xawli yàllaaw samaytu wa saayibal maqaami yaa samadi wa saayibal xaddami mahloomi yàllaaw خسست في النسي ثم المجد مع شرف يا صاحب السيف يوم الحرب يا الله سمعت صاحب الوسيلة استسلوا سمعت صاحب الفضيلة الله سمعته صاحب صاحب الإزاء صاحب صاحب الإزار مستترا وصاحب الهجة البالغة الله سمعت وصاحب السلطان مبتدئا وصور داعي وصور درجة الله سمعت وصاحب اللواء يوم النداء وصاحب التاج يوم الحرب الله سمعت وصاحب المهراج في رجب وصاحب المخفر المحفور الله سمعت وصاحب البراق مركبي وصاحب الخاتم حاتم مكلون يلو سمعت صاحب الخديب دون مرعاو وهو الفصيح لسان القول يلو سمعت صاحب البرهان يوم ندى سمعت صاحب العلمة الله سمعت صاحب الكونين شرهما سيء الإسلام حسن الخير يلو متهن الجنان ما لو دنس يدار رئيم سما يلو عين نهيم وعين القرم ممتلئا سهد الإله وساد الخلق يلاه خطيب كل وراء bilaayi min amamin sama joo allamal udaa ayalaaw wa kaasifil kurbi hanaa raafinu taban wa isatul harbi wa ahjaani yalaaw wa saayibil wa saayibul fariji qim summa sali alaa samay nabiyakal mustafa asaani yalaaw wa saayibul fariji qim summa sali alaa nabiyakal mustafa asaani yalaaw wal aayi wa saaj waj'alnii unaa waqanan min saayibil qaadimil muxtaari yalaaw réew njool màkk may nu ci barkeb tur yi nga am aw tur wudul fay ilal janaati yàllaw te may nu tur yi ci damay nu booli ci tur yi ak sa tur ya ja des ak tur yi may bëgg a way ngir yàlla yàllaw ma dellu ñaar ci juróom-ñeen fukki tur ya tofal juróom-ñenant ak min alqurani yàllaw arjo bi haaw bi sayqi fii nisaami xanan allahu ah saba fi daare ni yàllaw adoo bi asmaa'iki usnaam mu laaru taman bi xaatimin bëri wal maxduumi yàllaw te sunwati soona asmaan nasamtu biha qurani yàllaw bismi ilaahi الله بسم الله الرحمن خالقنا وهو رئيم اتسام بك يا الله ملك سمم قدوس يا سلام كسام مؤمن محي مؤمن سمم محي منه أي الله حسيس hasi hasisu jabaaru aydan mutakabiru yaa xaaliqu baayu yaa musayru laaw halimu xaabidu yaa hasisu jabaaru aydan mutakabiru yaa xaaliqu baayu yaa musayru laaw xafaaru qahaar wahaabul munakaraman dasaqu fataaw habli risqa ya laaw halimu xaabidu yaa baasidu xaafidu yaa raafiu kulli muusi muisal xalqi ya laaw ayaa musilu shamiu yabsiru kasa alhakamul hadru الرحمن واللطيف يا الله يا خبير ويا حليم في أبد حبلي به من وين الخيب يا الله يا عسيم ويا قوار مغفرة حبلي بخير حساب سما يا الله شكور جدلي بأن أكون دون ريا دون ريا دون دون ريا دون دون ريا دو دو دون دون دون ريا يا علي ويا كبير jubbihu lan li li ah, julli julli julli jubbihu lan li yaa xasiisi muqiital kufri yàllaaw antal asiibul jaliilul shahni munfaridan antal kariimu raqiibu rabbu yàllaaw antal mujibu li daayin qad daha dararan yaa waasir joodu yaa hakiimu yàllaaw antal waduudul majiidul baa'isul kuramaa antal shahiidu wa antal haqqu yàllaaw hmm. أنت الوكيل خوي والمتين كساب بقوة لي فهب في ديني يلاو أنت الولي الحميد الفيل في سمن حبلي حبلي الولاية وتهميد يلاو يا مهسي الخلق يا مبديب يا مبدي المؤيد فاب ما لا ما لا ما لا يهدو ولا يهزال يلاو حبيب تولي حياة دام سار قد يا مهي الكفر في أسناني يلاو مميت قلب مماتيب mumit xalima maatiim lil hudaa samanan yaa hayum habli hayaatan minka ya law yaa rabbi yaa rabbi yaa xayumu an sinatin yaa waajidul maajidul majiidu ya law yaa waahidul samadul qaadiru muqtadiran kulli wahidan hala aqraani ya law antal muqaddim muqaddim niim huna waqadan hala jamiil wara fil hasri ya law ayaamu ayaamu waqiru aqir sarmadan ajali antal uhibbu liqaaqal haqqa ya law awalu aaxiru judliim junooju dunya bi wa axiratan libiri daaw wal mu naa daarayni yallaaw shaahiru baatinu faltujib duha afatan fi sirri wal jahri bi tahjili yallaaw ya mutahali wa ya wali wa ya amali habli hula wa rida wal fawsa yallaaw xatubtu lil barri wa tawaabu muntaqiman faltafu an haw haw abati hafu yallaaw huwa raufu falin hasinam rafatu wa malikal mulki yawma diini yallaaw yasal jalali wal ikrami likur yasal jalali والإكرام للكرماء هب لي كرامة في أفعالي يلاو يا مقصد الجانون خني عن نسد هب لي حنام هب لي نها هنا والخدي يلاو هب لي هبلي هبلي هبلي خناك أيا مخنيم بلا سلق يا مانع دار ثم ناجو له يا نور يا هادي هم ياري في أبد أبي هدى مه نور قلب